salaamaaleykum maa ngi tudd màgget Niang maa ngi am 24 ans maa ngi nekk entrepreneur ci tourisme di dem di découvrir eh, dëkk bi suñu dëkk Sénégal ak aussi marketing digital mooy eh, réseaux sociaux yi ñi nekk chaque jour ay Instagram Facebook ak yooyu. alors man maa ngi am DUT. Eh, technique de commercialisation ESP ak euh, licence marketing ESP toujours donc euh, ba ma paree loolu noonu maa ngi liggéey euh, pendant ñaari at Sonatel nekk foofu noonu agent commercial léegi ba ma paree commencé naa di liggéey si ay agence yoo xamante ne ci digital bi lañ nekk may liggéey foofu noonu et ci loolu noonu laa commencé lancé sama ñaari agence yi nga xamante ne ci laay liggéey instant bii nii muy sunu trip boo xamante ne voyage la nekk pour découvrir suñu dëkku Sénégal beneen bi Link You Agency muy agence boo xamante ne marketing digital la ñuy def. entrepreneuriat nag dama ko yàgg bëgg depuis ba ma amee vingt ans maa ngi créé woon na euh, benn boutique boo xamante ne maa ngi fa doon jaay ay yére ay dàll ay saag yooyu léegi affaire yi neex ma torop ma ne pourquoi pas ma dugg ma continuer ci entrepreneuriat bi ci domaine yoo xamante ne man bëgg naa ko muy voyage bi ak marketing digital bi moo tax ma ne xaama continuer ci ci ci ñaari domaine yooyu noonu waa dëgg la ya yombul surtout dëkk Sénégal bi ñu nekk Euh, man nag ah, ba ma commencé ba léegi euh, dew ma ci banque yi pour ñu jox ma xaalis wala si organisme yi à chaque fois sama xaalisu bopp noonu laa utiliser pour euh, pour pour di ko développer. xaw na métti torop si surtout Sénégal bi ñu nekk ak en plus côté bi nga xamante ne mooy nit ñi lay soutenir mooy ñu nekk sa entourage donc man moom alhamdulilah am na entourage boo xamante ne ñu ngi may soutenir si la ma nekk donc loolu je pense que moo gën a important. man nag bëgg naa instant bi entreprise yi nga xamante ne ci lay liggéey mu gën a màgg gën a nekk entreprise yoo xamante ne yu mag a mag la si àdduna bi te euh, di Euh, andi liggéey jeunes yi xamante ne ñu ngi Sénégal ñu mën see liggéey ñu gën a développé mu gën a am euh, impact bu mag a mag a mag si réew mi. li may dénk jeunes yi mooy ni que suñuy dugg si entrepreneuriat ñu dugg si domaine boo xamante ne bëgg nañ ko bu baax a baax baax ndax c'est sur que dinañ am ay jafe-jafe yi ñu nar a am ci biir donc loolu nag motivation boobu ñu am ak passion boobu moo leen jàppale ba du ñu bàyyi ba dinañ si gën a continuer te dina nekk domaine boo xamante ne dinañ ci gën a bëri xam-xam gën ci Merci à Trois dans ses bottes pour cette invitation.